salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi nuyu ku su nekk sa tur sa sant di leen ne ngeen dal jàmm sur ma chaîne YouTube TV comme ni nga koy faral defee chaque fois. bon gars yi te dama bëggoon rapidement ñu wax si li nga xam ni moom moo di euh, médiocrité bi nga xam ni gars yi ñu koy jox mais maanaam des des des des thèmes médiocres des mais surtout li nga xam ni moo di des produits médiocres si laa bëgg ñu continuer si quoi dinaa a ma si xeex parce que je vois que ni dafa amul benn ah, jëlul li xam ni moom moo di jeunesse bi rek mais dafa commencé toucher aussi tamit li nga xam ni moom moo di mag yi de ce fait dama leen choisir quatre personnes yoo xam ni mën naa ne seen li ñuy def bokkul de mais si même loo bi la ñu bokk te dingeen ngeen seetaan ndànk-ndànk nañ commencé si premier artiste bi nga xam ni moom laay utilisé jaara seen petit boo xam ni euh, mu ngi kaaw selon les photos yoo nga xam ne day def Sénégal di ñëw mais li ñu mën a permettre jaara permetre ñu ko benn sénégalaise boo xam ne mu ngi biir Sénégal vous vous rappelez li nga xam ne moom moo di vidéo na bu mu defoon si bébé yoo bu Ngaaka Blindé amoon na benn polémique boo amoon boo xam ne amoon na mais polémique boobu noonu comme que Soukeyna mu ngi biir Sénégal loolu fa dañ siy wax waa mais bu fekkee dafa am benn xale bu jigéen boo xam ni yenn bagage mi defu ko biir Sénégal wala lu bon lii defu ko biir Sénégal mais Sénégal la bëgg a représenté moom image Sénégal la bëgg il faut que tam ñu wax quoi parce que je comprends pas xale bi lan lay bëgg woon Sénégalais at lan la leen di bëgg a jaay su fekkee da nga ba bëgg a jàpp ni artiste nga international nga bul defal dara Sénégal bul représente Sénégal parce que li ngay wane nii en tant que xale bu ndaw man des fois je demande leurs parents fan la ñu nekk en fait leen peuraa la ñu nekk at lu mu bëgg a nekk artiste at lu mu bëgg a nekk lu mu doon tey gis nañ fi Adele Adele Adele mooy anglaise boobu gis nañ ni amul benn nit boo xam ni mën naa ne mën na ne Adele solu na solu gu bon mais xale bu jigéen bii nii lan la bëgg a jaay sénégalais te il faut ñu wax si li mu sol nii daf ko war a arrêté tant que mu ngi resté loolu business am la ku ko dem suivre yaa ko suivre mais bu leen ko proposé publiquement sénégalais parce que boo leen ko proposé ou da bëgg ñu dal si kaw booy bi wala da bëgg a li nga xam ne moom la booy bi def pour wane yeneen xale yi mën nañ ko def. est que nekkul da tamit nag moo tax nga am follow yi da ñëw indi lu bees. waaw man sànq maa la ko ci biir wax ma ne la je comme les aw ma jotu ay toog naan maa ngi diw Zeyna boo xoolee say photo 2010 ak say photo 2020 am ah, na a man ni ma menoon laa men ba tey nag yàlla dafa def léegi star laa <laughs> mhm. non star laa moo tax ah. nga invité ma ah. toppatoo sa bopp defar sa bopp defar sa yaram ba ku la gis gën la naw mhm. samay tatouage man maa ko sentir samay bënn nopp maa ko sentir fan nga defee sa tatouage yi Gabon mhm. Gabon laa ko defee sa yaram bi fu mu toll nii fépp nga tatoué fépp tout tout tout tout partout tatoué naa sax fu ma <laughs> beneen affaire bi nga xam ne moom laa ñëwee mooy deuxième personne bi mu di kan mu di tafi benn xale boo xam ne gis naa ne temps yi ñu ngi koy wax xale sax xale benn boo xam ne gis naa ko ñu ngi koy wane mais yëpp xale lay def ñu ngi koy wane si écran bi am na yenn propos yoo xam ne da koy utiliser mu ngi mu ngi mu ngi commandé sénégalais yi mu ngi bëgg a wan yi ni moom Baye Fall la quoi et c'est pas vrai gars yi parce que ñun xam nañ lan mooy idéologie Baye Fall Baay Faal mooy si comportement si jëfin si waxin ak si colin ak si ngëm-ngëm loolu mooy Baay mais tey yow si li ma la si noonu yëpp benn affaire rek nga ñu woon mooy Serigne Touba élément Serigne Saliou la élément Serigne Touba la murit la arrêté arrêté billaay wallaay kilifa diine yi bu ñu mënoon dellu si pour ñu wax benn moore li ñuy njëkk wax mooy bàyyi leen di utiliser sama tur si seen lu ñàkk fayda yooyu noonu te li ma si gën a métti Sénégal il suffit que kenn ne taalibe Serigne Touba la rek wala taalibe Maam Baye Niass la wala taalibe Baye la wala taalibe Cheikh la lépp lañuy ñuy fàtte lu bon yëpp la ñuy fàtte ay eh waay waay waay waay lii tax ma bëgg ko taalibe Cheikh la lii tax ma bëgg ko moom dafa gëm Serigne Touba arrêté gars yi di may doole yenn nit yoo xam ne il utilise cette stratégie di leen yóbbu ci lu bon booy bi sénégalais yi ñoo ko nekk di critiquer mais yow yaa njëkk a critiquer sa bopp parce que ñàkk wóolu sa bopp moo tax nga jël sa ma yaram di ko def comme jigéen pour mën a attirer li nga xam ne moo di public féminine bi loolu mooy li xam ne du yow rek y'a beaucoup d'artistes sénégalais animateurs chanteurs yoo xam ne loolu ngeen jël bëgg a jël li nga xam moo di askanu géwal bi xoolal def ko mu nekk askanu góor jigéen te géwal yi laa comprendre nan la ñu mën a def ba nangu loolu noonu te da gis benn ji góor góor yàlla ñëw di wax ni jigéen ñu ne non ba dafa bëri fem géwal la mais arrêtez y a des yoo xam ne ay góor yàlla lañ suñuy wax dañuy wax li nga xam ne c'est important mais ñëw di manière di ñamax ñamax yi ba pare nga bañ ku la critiquer te kenn kenn soxorewul la kenn soxlaawu soxore parce que nekk ko artiste boo xam ni nit mën na la soxore mais booy dugg si benn bagage mu leer na ni da nga bëgg nit ñi jox la cër nit ñi jox la respecté nit ni ñaanal la ñun duñ la ñaanal si lu bon xeesal nga xeesaloo suñu yoon nekku si. mais bu ñu ko proposé sa tatouage yooyu ngay bëgg jaay nit ñi bu ñu ko proposé même boo nangu naa ne boo ko bëggee def intime yow la mais bu ñu ñëw di jaay ne ay da nga tatoué wu ay xawma la la da nga fresh foo fresh eh? yow jigéen yi gel la la jàppee men dañuy waxante dëgg. non c'est pas plaisir parce que comme li ma la wax sànq loolu Sengonish man la voilà Sengonish Caramel avec ses tatouages euh, ñi may bëgg ci samay tatouage lan may bëgg mooy loolu mais sama tatouage man la Senghonish. mooy mooy sama caaj. waaw baax na. <laughs> lijjantiwuma li nit yi di wax parce que man ñi ma dendal ak sama famille seen jugement moo ëpp import moo moo ëpp solo ci man. que nit yi nga xam ne dañuy toog seen kër di commentaire te xamuñu la. amul sens. voilà. beneen affaire bi nga xam moom laa ñëw nag mooy keneen ka ki nga xam ne mu ngi tudd Ngonish Caramel man damay wax li nga xam moom la ñuy proposé ah. li may wax li nga xam moom lañuy ñuy proposé ñi nga xam ne ñu ñooy sénégalais yi ñu ñuy dem si site yi ñu ñuy proposé yenn affaire yi di bëgg am information yu baax mais toujours dañuy tombé si lu bon loolu noonu Ngoné Caramel déjà dafa nekk benn xale bu jigéen boo xam ni boo xoolee kanam bi je crois que ni amul dara lu muy ressembler ak karamel li muy gën a ressembler mooy meew moom dafa waroon tudd Ngoné lee parce que dafa jël yaram bi xeesal kaa xeesal xeesal xeesal ba mu yëbb dafa yëbb dafa mel ni nga jël li nga xam ni moom moo di Javel Lacroix nga sotti ko si nu ñuul mu weex tal moom loola def kon tey bu ñu ñëw di ñu naan ay moom père kontaan sa papa bu kontaanee si lii wax dëgg fa yàlla sa papa bu kontaanee si lii kon war nañu xoolaat sa papa ko wax maa ngi jégalu sa papa bu ñëwee ne la sama xarit nga kontaan naa si lii war naa xoolaat kan mooy sa papa. parce que li ngay wane nii amul dara loo xam ni valeuru Sénégal la amul daraay éducation Sénégal amul dara loo xam ni Sénégal mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy propulsé si lu baax sa papa tey bu nangoo. wax dëgg fa yàlla war nañ xolaat lii quoi arrêteel di def yu bon yi kon sa papa tey nii day dugg sa Instagram di gis sa simeeku bi nii mu lay mu lay encouragé di la gën a ñaanal kon tey sa papa boo ñëwee xeesal bu wextaal di reewante si reewante si kanamu tele bi sa papa dalay lay encouragé loolu kon kay je comprends problème bi fan la problème bi du yow de problème bi du Sénégal de problème bi si parents yi la problème bi si parent yi dañuy yar seen doom léegi lan mooy dil bi waaw defal li ngay def métier li ngay métier ñëpp naan dama bëgg a teral sama yaay teral sa yaay ba teral ko si lu bon kon kay nañu valider ay jaay drogue biir Sénégal parce que jaay drogue tamit teral sa yaay la pour am xaalis pour teral sa yaay il faut ngeen bàyyi di jouer si notre tête respect bi ngeen di laaj mënuñu leen ko jox tant que joxoo leen respect sénégalais yi seen solu yooyu noonu seen solu yu bon yi wala seen manière góor jigéen yi wala seen yëfu góor yoo xam ni mooy loolu kenn du leen respecté mënul ne et dama leen koy wax mu leen di leer beneen problème bi nga xam ne nag man moo ma gën a metti. xaar mu ñëw xaar mu ñëw. tey nag sama français yu yu neex laay dóor fii sa tët sa mali. xale baa ngay woy mbëggeel. sa tafi daa aaya. mag ñee ko doon woy. pour que ti sama ti quoi. mu dugg ci aar. ki ko ti daa. ñu bëri naan day yàq aar. l'autre jour là dama doon défendre li nga xam ne moom moo di euh, euh, Abou Thioubalo même bu fekkee am na benn méthode boo xam ne de communication boo xam ne su ma sañoon mu travailler ko tuuti tamit parce que des na peut-être nag frustration mooy wax tax muy waxee loolu mais dafa war a nekk tamit artiste muy xalaat ni li nekk dina ñëw quoi tant que jiñ ñu la góor jigéen tant que jiñ ñu la sulu bon ñu wax si sa carrière musicale rek il faut nga accepté ko mais dama koy défendre si lii comme ni ma ko défendre l'autre jour maa ngi doon wax ni tey jii nii Abou Thioubalo bu ñu ko déggul un artiste performant un artiste impact un artiste qui sait chanter ku xam musique bu ñu ko jëlee teg ko fële sànni ko ca mbalit ma di ma jëlal benn xale boo xam ni benn woy jàmbur la jël di ko répété woy bu ñàkk xorom parce que dafa ñàkk début à la fin du parole du du du du fecc du dara amul dara loo xam ni indi na ko Sénégal ñu jël ko DJ Momo ko njëkk jël man je le comprends DJ Momo parce que jabaram si un un lañ ko xamee kon ça veut dire que si entourage loolu la nga ñëw gis Abba invité ko télé gars yi di ko jël di ko wili pandis télé bi pour wan boobu xale boobu noonu jeune talent la quoi jeune talent balaa amee da ngeen jeune talent kooku lan la mën a apporter li nga xam ni moom moo di musique Sénégal gars yi il faut mu jeex. yéen ñi yéen a mën a génne lii la seule solution mooy ñu bañ ku ñuy abrutir te sénégalais yi dañ nekk di abrutir li nga xam ne moo di jeunesse bi mais surtout léegi nag la majeure partie des hommes âgés des adultes ñoo gën a nekk ay abrutir li nga xam ni moom moo di xale yi. en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi ma leen si doon ñaax bu baax a baax a baax si li nga xam ni mooy loolu noonu te vraiment vraiment je suis désolé su ma waxee lu ñu mais il faut ngeen xam ñii. ni ñuy def mooy seen stratégie bon yooyu noonu di si dugal yenn sëriñ yi te damay jaaxaar sax man est-ce que gars yi doon gëm sëriñ Touba est-ce yi doon gëm maam Alaaji Malick Baye Niass est-ce que ñu ngi leen di gëm ba léegi parce que bu ñu accepté yenn genre yi nii wax dëgg fa yàlla man damay dute tuuti tuuti nag si li nga xam ne moom moo di gëm-gëmu Sénégal yi gëm-gëmu sénégalais dama koy dute parce que munu ma nangu nit di pervertiru di utiliser benn sëriñ boo xam ne tur bu mag la yor maanaam liggéeyal na Sénégal sénégalais yi di accepter loolu dañu war a def képp koo xam ni indi nga fi lu bon képp koo xam ni solo nga fi la bon di dem sax di waate Serigne Touba gars yi créé la problème su boobaa nag di ngeen xam lan mooy Sénégal góor jigéen yi moo fi war a des xeesalkat yi ak yooyu noonu doy na sëkk il faut ñu topp suñuy valeur am nañ culture am nañ suñuy valeur te dañ koy défendre diine la ñu wax waaw pour ñu nangul ne ko nag il faut que diine bi génn yeneen choisir nag vidéo bi loolu la woon gaay yi loolu was la woon a yéen wasalaam